leen ndax ni dëkk bi tëdde sooy dugg ci dara te ñëpp yem daraja ca la ngay woote muy chef de village wala délégué amul bu mag ak bu ndaw titre bi benn la moo waral da ngay mën woo ñii boo lëgee nga wooñee loolu waraloon semaine bi passé am beneen parti bu njëkk ñëw def mel ni bii ñu def tey kon tey bii mooy ñaareelu ndaje ci woote yooyu ngir lañ wax fee ñu baamuwaat ko fii ba ñu xam ne nit ñi ñenn lañ woote bi benn la li ko tax a jóg nag mooy gaaral leen man yéen ñëpp ñi ma ko bokkal suñu sant ak suñu ngërëm ci ak suñu ndollee feddali suñu teel bi ci kii fi yàlla teg muy Serigne Mountakha Cheikh Ahmadou Bassir xalif général des mourides ndax ñun ñi ñëpp moo nu jox baat wala boo kan jox baat Serigne Mountakha mooy kilifaam loolu yëpp mu dajale ko dénk ko Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad di sunu sëriñ ñu jox ko jëwriñu yoon wi ba noppi mu yilif baatub dëkk bi kon ñoom dañ leen di sant rek ñaanal leen ñu yàgg fi te ñu yàgg ci seen ginnaaw loolu taalib bi ma yaakaar naa sañ ko di leen sant yéen ñëpp gannaaw loolu jàllee mu am nag lu fi xew ci weer wi ñu génn te jëm ci sama jëmm ji te loolu bu amee ñi ko yëgutoon war naa leen koo wax ñi ko déggoo nit ma leeral leen nam demee loolu mooy kii fi yàlla teg ci bopp réew mi di la président Macky Sall ci xalaatam bu rafet ak yéeneem bu rëy dafa am lu mu def ci sama jëmm ji waaye day mel ni am na lu ko jiitu ci teraanga akuk séq ci sunu ay diggante yi ci bari loolu it permettre woon na ma ma man teraanga boobu royaatal ba ci yéen ñii ci magal yi ñu wessu lolou dama koy branché waat rek pour ñu xamné li ma du man dong way ci man la ko jaarale won te dafa jëlat ay engagement yu bari ci lolou fas ko jëme kanam ay ya wara top yépp ndax ñëpp dégg nako monsieur misir amar ci chef de village pour jëfal ay ustati pour ñu am ay salaire loolu chef de village yi ci Sénégal yëpp la am yéene ci loolu wax nañ ko ba ñëpp yëg nañ mu mel fii ci tubaa nag su fekkee dafay nommer ab liste boo xam ne ñoom la ñuy wax membre conseil économique sociale et environnementale lim ba war a nekk téeméer ak ñaar fukk mu jël sama tur boole ma ca list booba teraanga la ju ma defal man teraanga boobu nag war naa leen koo yëgal yéen ñëpp jot leen samay cant ak samay ngërëm ci moom ak samay engagement ci côté bu loolu jàllee mu am nag lu mu sàkku ci Sénégal yépp mooy li ñu dëgmal di jongante bopp réew mi ñu tëralil ko tëralin boo xam ne dafay mel ne bëgg nañ balaañ ci ay àgg ñu xam ña cay dem kure mandar yeñ la mandar ba yoon may la nga man ca dem lol nak kep ko xam ni am nga responsabilité ci bir rew mi rawate na nga am lu la yalla denk muy bat lolo day mel ñepp ko wara sakku ci yow ndax rewu démocratie lañ nek ci bi sàkk gogu nak kenn ku ne dara la ci sas lañ japp ne man nga ko wala yow ci sa bop nga sasoko kon lool mo waral wote bi tay muy mbirum pérénage bi ñu deugmal Sunko santane santaane ma njëkk a woote fii ci ab daje ñu di su ay say ay suñu ay nattangoo am ci lu mat ñaar fukk ak juróom ñaar ñëw fa kon war naa man woowaat ci biir liste bii ñu yor ña des ca ñooña loolu waral jataay bii ngir informer leen ndax day mel ne village bu ne ak quartier bu ne mbooloo ma fa ne nga nga nga nga jiite leen mbooloom ñëpp a nga ca parti bu ne wala coalition bu ne am na ca mbooloo mooma te ñooñu chef du village walla délégué de quartier rek ñoo mën a xam ñooñu ku ci ne ka ngay jàppale ci ñiy wut ba léegi baatub réew mi kon suñ mu leen woo kenn ku ne ñana ca sa gox te nga xam ne mën nañoo jàppale président Macky Sall nag ndax ñoo ko doon def démb way laa bëgg nañ koo jàppale ngir tey way laa teraanga ji nga xam ne teral na ma ko te ma seq ñoom neex na leen way laa ñoom itam teraanga bi leen président Macky Sall teral ci at yi ñu génn kontaan nañ ci te bëgg nañ ñu yokk li nga xam ne yéene na ko ci chef de village ak délégué yi itam bëgg nañ bokk ci cër ya ndax damay wax ne yëfu ñun diine àllaaxira la jëm waaye mbir mii nag àdduna ji la yem tey ñun liñ man rek mooy luñ jàpp ne lii njariñu ñépp la ñu fexe ba mu àgg ci ñépp ba tax na kon bu ñu ko déggee information bi ñu xam jumuwaay bi la ca des nag kenn ku nekk yaay xam na nga ca naka nga ca bëgg a tàbbee ak la nga jàpp ne boo demee ca sa famille yi ña nga euh, jaboote da leen mën a signéloo parrainage boobu nga xam ne forcé du ci am maa leen yi du ci am ndax mbooloo ma mbooloom ku nekk nga ca waaye ñu liggéey ko liggéey bu sell ba nga xam ne ñoom la wóor na ñii yéene nañ la yow ñu leen di signaloo baat wala yéene nañ la boo lëggee nga bokk ci chef di village yi ñuy fal wala yi nga xam ne seen teraanga bu yokkoo dana agsi ci yow ñooña lañ sant nga sàkku ci ñoom signature boobu ba tax na semaine dernier yónnee nañ ma boroog boo xam ne juróomi junni ak lu topp la lan ñaata seet cinquante cinq mille cinq cent ñu ngi fii ci bureau bi ñu ngeeg suñ Cheikh mbay ak Ali ak membre conseil yi fi ne ngir bu jotaay bi jeexee kenn ku nekk ci yéen xëy na balaa dem dana mën a proposer wala mu joxe xalaat ne man de yaakaar naa dinaa mën a te fa ma jëm nangam ci lim suñ ko fa indee dinaa la ko mën a prene bii ci guddi état dara du ko ëmp loolu tax ñoom gis nañ déjà réunion bu njëkk ba impact bi mu am ci ci ci ci ci ci ci presse bi ak ñoom lañuy xam tax na seen yaakaar yokkuwaat seen xelit gën a dal ba ñu yónneewaat ma beneen paquet mooy bolog bii ma tiim nii loolu sas la boo xam ne ñoom ñoo ma ko sas ma itam sañu ma leen a sas waaye sañ naa leen a ñaan ngeen jàppale ma ci sas boobu ñu ma sas ndax dana ma may boo léegi ma mën leen faa nekkal ak di leen défendre ak di leen ñoddil fal nag ñaar rekk la loo defoon ñu leen récompenser te ku ne xam na ne bu fekkee defoon nañ it def def ba des na kon loolu taxul ndax ku ne xam na li fi romb jàll kon bu la falee te ak seeguñ ca la tax muy soxla réew mi am na yaakaar ci yow ne mën nga koo defal dara lu ko jariñ jariñ coalition bi mu àndal may itam nag loolu bëgg naa yéen ñi nga xam ne noo bokk noo ko bokk séq ñun njëkk ñu yëge ko noonu te jàppee ko noonu la cay njariñ moom dupp kenn ndax képp koo xam ne bind nga ne engagé nga ne da mën a sënje ci parrainage bi ab lim lim ba nga engagé ñoom suñ Cheikh Mbaye ñoom danañ def fiche yi dañ ciy jot buñ ci jotee nag buñ demee bay joxe cër yi chef du village yi kenn nattabluwut ne ku ëpple ci signature yooyu premier loo yay génn pour nekk ay ñoo xam ne euh, dugg nañ ci administration jàpp naa ne ñooñu ca la ñuy bokk loolu nag lu ma doon leeral la bi ci des rek te moom lay tëjee kenn ku ci nekk boo bindoo ne mën nga engagé nangam yaar daf cay war lu bokkut ak li nga xam ne avantage la bu ne ca kanam te ma junj ko léegi ñaari ci am mooy. ñu defeen ko defin wu sell wu tax njuumte du ci am ndax ku ne sañ nga pare ne kala neex waaye boo amee double signature rek yooyu yëpp dañ koy récité mënoo jël fii jël fa moo tax ma jël ñoo xam ne ak groupe la boo ne fa tabarakallahu jàng nañ comme yéen ñëpp li ngeen ñu jàng ku ne ak loolu yàlla booleel nga jàng ko waaye ñoom jàng nañ nasaraan ba noppi bokk ci équipe boo xam ne li ñu bëgg danañ ko mën a saytu ñu bëgg kenn ku ne bu bindoo wax ne mën naa engagé nangam mu wax bis ba nga xam ne jàpp na ne buñ fa ñëwee andil ko boobu fekk na moom mu waajal ko ba déggoo caag ay nitam bu ma defee ñu mën koo def definu sell boo xam ne ay njuumte du ca bari ñooñu tam ci bis boobu bu ñuy ñëw ci sama côté man tam jël naa engagement ngir ay nit ku leen dajale ñu ne fi bërëb am na lu la ca war warteef boobu tam bis ba la jàpp ak ñuy ñëw warteef boobu ndax bu ma sañoon booy tàggatoo sa mbooloo ñoom ñu xam ne yow mi mat nga njiit luñ fañ la teg loolu daal mooy ci gàttal xam naa xaw na gudd sax waaye leeral dafa baax ndax mooy tax ku nekk xam nan nga koy déggee ba kenn du ne nàngam la bëggoon a wax wala ndax wax ji dese naa koo dégg ñu ngi leen sant leen gërëm ñun ñëpp.